di nuyu sa collaborateur yi nga àndal ak sa collaboratrice yi madame le ministre tey nag euh, dañuy ñëw pour war a waxtaanee nafa gi nga xamante ni moo war a doxal ci ministère ci atum 2022 ku ne xam na ni nat loo na na nafe ci 2020 montant bu toll 19 milliards 322 717 40 francs CFA ren ñu jox la 22 milliards 526 470 666 francs CFA. Augmentation 3 milliards 2. Madame la ministre, <laughs> mais si vous ci par euh, rapport le programme 5 je vous lay jàppale yow da ngeen di melni koy askan programme 4 bi nga avez tay mo la promotion de de valorisation des produits locaux nga xamante ni yaakaar naa loolu bu ñu ko mënee defal mooy war a gën a am suñ koom-koom nga leen doxal moyen de un milliard et <laughs> loolu yaakaar naa ni bu ngeen amee ambition ni war ngeen a maanaam suqali jàppale ñi nga xamante ni mooy mbay mii ñuy may bay fii pour ñu mën ko euh, defaraat pour ñu mën ko jëfandikoo ak montant bi ngeen dugal ci kii dafa méngoowul ak li nga xamante ni mooy li war a man a am gis nga rawante ñu ngi koy def ci ambition montant bi pour man mënul sax tàmbali li ngeen bëgg a def ba di ko ci 2022 kon il faut ngeen xoolaat bits bi foofu noonu madame la ministre le programme numéro 3 la promotion développement entreprise privée montant 7 milliards mais aussi il faut que ngeen xoolaat seen chiffres yi ngeen parce que pour moi, dafa tout. adina dafa il faut que ñu di ko xel

du ngeen si génn nëbb nëbb yi ngeen di wax pour que askan wi defe ne li ngeen di wax ne mooy la am il faut ngeen jóge si loolu parce que ministre de ministre de finance xam la ni fii la ñu mën a yem mun ñu ko passé comme fii la ñu mën a yem ci fee ngi yokk il faut ñu yokk frais il faut ñu yokk mburu mi wax leen ko sénégalais yi di nuyu aussi euh, ci ñi nga àndal euh, directeur commerce et intérieur monsieur Diallo ci liggéey bu rafet muy liggéey ak Loddange ak euh, madame Niass ah, ex madame Niass sama xarit bi ñëw moom ndax daaw en tout cas ñu ngi lay si li nga madame ministre le décret 77 527 le 23 6 mois 1977 école di mais pourquoi nga ñëwaat pour génn arrêté pour rappeler li nga xamante ne décret vous nga xamante Abdou pour imposer ko Sénégalais madame la ministre ma 2012 Sagu tiep lum mu doon parfumé 2021 ñaat lay jar fi toll ni may wax ak yow wax ko Sénégal ñu ñu dëgg kilo suukar 2012 lum mu doon jar 2021 ñaat lay jar diw 20 litres bi lum do jar à 2012 2021 ñaat lay jar sac de farine bi nga xamanteni ni ku ne xam na ni augmentation bi dama bëgg nga wax Sénégal à 2012 ñaat la doon jar ak 2021 ñaat lay jar madame la ministre. Les nga qui ont mooy ciment à 2012 45 000 2021 70 000 de fer 27 000 à 2012 2021 45 000 li nga xamante ni béton 20 mètres cubes à 2012 ça fait 270 000 2021 450 000. madame la ministre je lay laaj programme yi nga xam ne ngeen ko pour mu jëm marché Marseille, fan ngeen si ndax marché bu est-ce que bàyyiwul leen bàyyi nga leen xel ndax japp nan ne programme moom Touba bokk ndax da ngeen am problème yéen wa Touba en tout cas je vous remercie maa lay féliciter dala encouragé boo nuyee nga nuyul ma sama dom Macky Sall merci merci honorable Théodore Chérif Monté vous avez la parole mam Diara Fam se prépare Merci beaucoup, Madame la Présidente. Madame la ministre du Commerce, Monsieur le ministre du Travail, du Dialogue social et en relation avec les institutions, Mesdames et Messieurs les hauts cadres de l'administration, honorables collègues. Madame la ministre du Commerce, la souffrance des Sénégalais est devenue palpable. Les multiples déménagements avec ses corollaires de préjudice, changement d'environnement, déscolarisation des enfants. Tout cela parce que nous n'arrivons pas à régler deux grands problèmes. Le premier, c'est que nous avons des lois que nous ne faisons pas appliquer. Le deuxième, c'est que l'État ne protège pas assez les citoyens. Madame le ministre, L'exposé des motifs du projet de loi 2014-3 du 3 février 2014 dit en substance ceci. En dépit d'une réglementation pointilleuse prise en application de l'article 572 du Code des obligations civiles et commerciales, les prix des loyers des locaux à usage d'habitation n'ont cessé depuis des années de connaître une poussée inflationniste. Ceci est un œuvre d'échec. Un État ne peut pas dire j'ai des lois, les gens ne les respectent pas, mais je ne peux rien y faire. Ce n'est pas possible. Madame la ministre, la régulation n'a aucun sens dans une économie libéralisée. Créer un observatoire des loyers, c'est créer encore une source de dépenses inutile. Madame la ministre, ma question est, d'un point de vue strictement légal, quelle est la validité de l'arrêté qui demande à des opérateurs économiques de travailler comme ceci ou comme cela Le problème, c'est qu'aujourd'hui, nous n'avons pas une bonne maîtrise des acteurs de l'immobilier. Nos textes de loi sont très clairs. La loi sur la répression des hausses de loyers est encore valable. Nous pouvons l'utiliser pour savoir qui est dans l'immobilier, qui respecte la loi et qui ne le respecte pas. J'invite les parlementaires à le consulter. C'est une loi très répressive. Ici, il y a encore une faiblesse des acteurs. Cette loi prévoit l'existence d'un juge des loyers. Qui le connaît au Sénégal Vous dites que si le, preneur ne, défend pas euh, ses positions, il n'aide pas l'État. Il n'appartient pas au preneur de défendre ses positions, il appartient à l'État de protéger le citoyen sénégalais. Il y a en, en dernier lieu une absence d'offres institutionnelle. Vous savez, dans les grands pays, pour réguler le loyer, c'est l'État et les collectivités qui offrent d'abord c'est un service public, c'est un droit. L'être humain a droit à un toit. Si l'État construisait des immeubles, si les collectivités construisaient des, immeubles et les mettaient en bail à un certain prix, les autres acteurs seraient obligés de s'aligner. Je vous remercie. Merci. La parole est à notre collègue Mamdiara Rafam.